làmb ñu ngi fii nag Pikine tey bi ñu tuddati ku fi woote Boy Niang bu dëggool ku muy bëreel Lac de Guiers numéro 2 ku ko tëgg Baye Ndiaye fan la koy yóbbu arène nationale arène ba fu mu ne diggante Guédiawaye ak Pikine lii nag defe naa waa Pikine xam nañ ko taala maangoo ngi nii maangoo ngi lekk leen daloo ne waaw. Thank you. père tey uniforme nga ma may de. waaw guerre lañ jëm. tey terrain nga fi indi de. guerre guerre lañ jëm guerre. te guerre day saf mondial. waaw yaa wax lii. waaw camouflé. dañuy camouflé. waaw mais samedi. moral bi actuellement fan la toll. sant yàlla. ah sant yàlla bu baax julli ah, ah. booy. booy ñu ñëw léegi. lu gaaw wala lu yéex. incha allah si kàttanu yàlla day gaaw. waaw. xam nga lu tax xam nga ñu defal lii pour yéen yi ngeen bañ am problème ah moo tax ñu def géew bu yaatu bañ am cambal cambal waaw waa police ñëw jàpp nañu ñu ngi remercier directeur police waaw parce que lii directeur police moom jàppale ak ministre de l'intérieur pour mu bañ a am benn waaw waaw di gërëm di gërëm commissaire ñu ngi gërëm ñëpp parce que seen élément fii ah lépp ñoom ñoo ko waral pour li kenn bañ fi agressé bañ fi xeex bañ fi xuloo soxlawuñu loolu waaw agressé soxlawuñu ko fi. mais père kontaan naa ci nag tey li ma sol nii da nga cee war a wax sama mayo Mauritanie bii. Hmm. fédération Mauritanienne de football mu ko yónnee jaarale ko ci Ndeye Koumba Fall ah Mohamed Yahya muy nuyu waa Mauritanie yëpp nag taal leen wax ne nag Coupe d'Afrique bi li li li Père Max Mbargane wax rek waaw rëbb ca la taala boo jam nit ku jam may la Mauritanie nañ rëbb ca la qualifié ngeen Coupe d'Afrique loolu am sens. Père Bour bëgg la. Euh, bëgg naa la Babacar. ah man de li ma gis organisation bi parfaite na. waaw ngeen toll fan actuellement. non fi mu ne xam nga ci finition la ñu ne. te yow xam nga ni li gënoon a métti yëpp jàll na. Uh-huh. ñun duñu wax ni ñoo mais tamit mun nañu wax ni ñoo fi gën staff ndax euh, organisation la ak entente ak liggéey boo xam ne liggéey bu set la boo xoolee bi façon organisation nga xam ne ñii tey jii tasaaroo ñu ay nit yu ànd lañu bokk benn xalaat di di di liggéey ci loolu di ñaan yàlla aussi jour ba képp koo xam ni couleur Pikine ngay défendre bëgguñu nga sol lu dul sol lu rafet toog ci kaw tribune bi di supporter sa mbër kontaan yow jërëjëf. waaw ah, waaw. eh loo may mayaat tey. jeex na. Eh, ci caaya. caaya yu wuuse. waay. daal yeggee ci kii mu xaalay tuuma xam waan xam waan waay xam waan sax ba yeggee ci kii mu xaalay tuuma xam waan xam waan waay xam waan ñëwal dana dara ayool ba ba mu dana dara naa la gaa yaa ngi ni sama gaay maa leen di bëggee ci lu ngeen ne Ziza kii kan la ba xaar fii waaw mbir mi lay xaar boo ñaa ñëw na sax léegi mu egg si ah. waaw Zambala est-ce que pare ngeen yàgg na ah. pare nañ bu yàgg kay ah. waaw kon daal yaakaar ngeen affaire yi day nooy samedi non dañuy am ndam incha allah incha allah incha allah dañuy am ndam Grand Zambala Boy Niang Grand Mbagnick yéen ñëpp ci mois de juillet bi ngeen di bëree loolu du diis. non instant yi kay mbër la ñu mu ubbi ñu bunt bi waaw instant yi pare tey yaakaar am am nañu yaakaar yoo xamante ne lu wóor na xam ne dina ubbi bunt bi waaw. ak Lac de Guiers ubbi bunt bi dina yomb. non Lac Lac Lac du Thiès du Thiès instant nañ bu yàgg pare nañ bu yàgg waaw ok waaw merci beaucoup. kot su buy xeex kot su bi moo doon xeex kii moo xeex xeex bi moo ko doon sàll kii mooy Cheikh Ndiaye mooy kot su booy ñang kot mais kot su xeex bi kan moo gañ sax ginnaaw bi mu la nuyoo. fay naa leen waa di wax ne xeex amul euh, Babacar maa ngi jégalu Sénégal gépp di jégalu sama njaboot man parce que man dama am ay doom yoo xam ne ay mag lañu am ay sët. kon am na loo xam ne waruma man bu ma nit tooñee sax dama la war a bàyyi xam nga Rhone man ak moom sequñu dara ma waxaat ko lamb moo ñu boole lamb fo la mais foo ñuy fay ay millions du caaxaan à ah, in semaine du combat nga ñëw fekk ma ma taxaw nga ànd ak sa journaliste di ma mboq du ma ko nangu du ma ko nangul kenn lamb moo ñu boole su lamb ji jàllee mën nañ sympathiser mais pour l'instant nii dëgg la te bu jëf teewee wax day toxu loolu kese la mais histoire ma xeexuma dañ maa fekk ma taxaw ñu def ma lu ma neexul nit la ma réactionné loolu kese la du dara du leneen maa ngi jégalu ñëpp nag mooy yow loolu ngay wax ndànk boo entraîné neuf mois soo parewul nooy def samedi incha allah la dëgër nu ngeen koy wax. moo la dëgër dañ koy dóor daan ko déggoo ma de yox la jëli ko waaw waaw. loolu mooy lan. loolu mooy yox la jëli ko yox la jëli ko yóbbu ko piqué pomme du morom neew. bi <laughs> rek waaw waaye mosuma mosuma tiit mosuma tiit barke sëñ Babacar Si mosuma. ndam la daa leer pour yow. ndam la comme li Boy Niang waxoon rek bu kenn yàqam ku ne sa kaas na nga ko téye. maanaam fonde bi waaw. ñëppay naan foo de. ñëppay naan ku ne nga téye sa kaas dina ñëw de bu kenn yàqandu tuur la rek waaw. Talla Ndiaye Pikine naanum fondé fi xew taay yi Pikine fondé yor xaw ma fondé bu tàng la xaw ma fondé bu sedd waaye loo ci mën a dégg daal fondé la ñu wax kuy naan ci fondé bi. curuxu curux waa loolu de ay wax la bëgg naa la. delloo naa la. curuxu curuxu mooy lan loolu lañ bëggoon kuñ ko tekkil. xamoo mooy lan. wax ñu ko ñu daanee ba pare danañ ko wax mooy lan. wala ñu. yow dañ laa bëgg a dégg. barke Serigne Touba buñ ko daanee dina xam lépp dëgg la dinañ ko leeral allah bu neexee yàlla. dinañ ko duma dinañ ko daan. moom la dinañ ko laspeer teg ci. laspeer barke yonent bi. dañ koy laspeer. laspeer. <laughs> lañ koy tekki. laspeer. kii moom xam naa war na xam ci fonde bi dara dégg naa fonde ngeen yor de. waaw yàgg na fonde bi moom instant bi defar nañ ko ba pare. moom la ñuy xaar mu ñëw ñu dóor ko dóor yu métti métti. naanal ko ko nag. def ko curuxu curuxu waaw kay. maa la wax lii. li nga neex Adja loo wax yow. ah comme ñun lu ñu wax rek. <laughs> yow loo wax say wax yow. waaw fonde bi moom mi ngi loolu na fi. Ah. mais xoolal nañu xaar ñi ngi ñëw dañ koy def pièce par pièce. géej waay ngeen jëm de. ma ne la gis nga oto ni ñu ko defee pièce à pièce ko décoté ko di ko def pièce neex na jeex na. maandu ne tekk tey ba xam fan la ñu tekk di yóbbu ñu man caa wax man caa jëf. yaag Madoune Diouf ki ñu teewat ki ñu taxawal mooy Pape Diop Boston champion d'Afrique lu ne mu def ko ci làmb. ñaata waaye yow daa daa bëri Madoune wax man fàtte naa ko sax. ñaata yoon champion d'Afrique tonto ginnaaw bu ñu la nuyoo. waaw dem naa dem doon naa champion d'Afrique quatre fois doon benn yoon champion de senegal te li ma fi daan ëpp na cinquante combats ku bañ a daanu nag dangay ngay dem sa kër toog ndax jamono yi nii bëree euh, booba booy ñang judduwul ba mu judd fekk ni nekk ci salle bi papaam doon suñu entraîneur sama deuxième entraîneur deuxième entraîneur bi mooy maanaam dama koo yar ak sama rakk ñuy ànd kon bu ñu demee ci làmb. comme moom tey écrit bi nga xam ne maa ko yilif mu doon fa deuxième entraîneur man ma retraité ba doomam ñëw ci biir écrit bi ba gimmi fi bay bëre yaakaar naa ni kooku suñu doom mooy bëre. mbër mu mel ni Lac de Guiers 2 Boy Niang di bëre ak moom ban taxawaay la Lac Boy Niang war am ci boobu komba euh, taxawaay bi mu ci am rek mooy fulla ak fayda wane li mu daan wone njàmbaar defar kàttanam indi fitam ndax fit ku koy wax di nga xam ne booy Niang am na fit bu dee doole di nga xam ne am yàlla dénk na ko kattan yàlla na ko yàlla jàppale te li wër leer mooy Lac de li muy indi ñun du ñu jéem a xool li muy indi ñun li ñu indi moo ñu intéressé parce que bit boo ko dee yóbbu da ngay xool li li la intéressé nga ñëw ci objectif boobu waaw. waaw yaa waxoon ne la technique élimine la force. mooy li ma woon gars yi li may dajee gars yi. ay cent nangam cent trente cent vingt laa doon dajee gars yi moo tax ci laa jàpp dem doon leen daan kon moo tax ma ni la force élimine la technique mais des fois la technique élimine la force kon bu fekkee ne bi dafa demee noonu ñun objectif bi la dëggee di indi ñun duñu ko to ñun li ñuy toppatoo mooy li ñu bu ñu ngembee xale bi li ñuy indi mais coow jóg na fi ci biir Pikine fan yi loolu du leen déstabiliser ci combat bi c'est-à-dire dañ dégg ay wax ci xam biir Pikine daal waaw non Pikine du mën a ñàkk parce que comme dëkk dox daje la ñi dëkkoon Ndar ñi dëkk Ndàngal ma ñi dëkk feneen ak feneen ñëpp a fi daje wax du mën a ñàkk loolu rek a waral wax ji amul leneen wax ji moom li wóor te leer mooy du mën a ñàkk parce que dëkk bu toll ni Pikine ëpp Ndakaaru wax dëgg yàlla nag sport bu fi duggee ay champion dugg fi ay roi des arènes dugg fi wax dëgg yàlla li wóor te leer mooy foog waxam foog waxam waaw Eumeu Sène mu ngi waaj ak Modou Lo. Eumeu Sène le roi des arènes. moom itam doom la comme kii tey ñu fekk si. yaakaar naa ne roi des arènes bi dana naqari jëlee ci moom. te bu soobee yàlla yéen itam incha allahu taala. yaakaar naa ni ku ndóobin rey sa maam ba ñuul daw. am naa yaakaar ci ne la mu demee woon mën naa am ni du ni demee waat. incha allahu taala. kon ñu joxante rendez-vous ba ci kanam. nañ joxante rendez-vous ba ci kanam. Chéri maa barke yun ti yàlla Mamadou Lamine Awa yëpp na. ah est-ce que tam nga ma. laa ilaaha illallaah man xam na ne APS nga jaar. waaw ce que romb ma APS de la aw. yow xam na ne APS nga jaar. yow aw. yëg nga ni Macky daa indi lu bees ah. waxati ma teer. teer. fu la ñëpp jaar. lamb ji ndax lambi teer la. laa ilaaha ci teer lay mujjee. nu muy mujjee ci teer. xam nga ndax lan. xale bee du gëm lu muy gis. képp kuy géwal. fu mu toll nii bés bii rek nga laa ilaaha illallaah. kon yaa ngi ci ginnaaw Boy Niang. ci kàttu ni ba sagal xëñ xunnu. xunnu xunnu. ba sagal xëñ xunnu. waaye xunnu. est-ce que xam nga ne rek la pété day xëñ a wërsëg. yaa ma ko wax. rek la pété. waaw day xëñ a day a wërsëg. te yow da ngaa féete. xam euh, naar ba dañ ko pes. bañ ko pesee wax. dafa xool gànnaar. ñu ne ko lu tax nga xool fii mais nag maa xam ne ba wàllu yu jugee foofu lay jugee. ñun amul lu mu mbokkam na ko bandum. laa ilaaha illallaah. loo may may ci gémmiñ gi ci lu neex. yoo curuxu curuxu moom la boo ñaay génne curuxu curuxu pacaaxin gin curuxu curuxu dal min pacaaxin gin nga naan raagit yow yëgoo li xew ba samedi kon ba samedi di nga gis curuxu curuxu pire pire tur yow dundal yow mi da ngay dund est-ce que xam nga say néew la yaa ngi leen di yow sa caméra daan rek ca kaw te njëkk di rek yaa ko am <laughs> lamp ngi <laughs> alaay lamp yow da ngay caméra ba noppi boole ca da bëgg lépp leer foofu ngay dox. lii rek dafa neex. waaw Pape Sarr nag na maa nii waaw. mais coow li lu waral coow li fan yii. coow li dara waralu ko. sama doom laa doon coowal. kooku dootuma tudd doom la ci parce que dam koo defal lu ko waajuram defalul dam koo guddilal. bëccëgal ma perte samay bien ndax moom yaa ma may dégg gis que mu xañ ma dem Bercy baabooy daf xañ dem Bercy daa may dégg gis que tooñ ma indi ma si yoon yàlla daa def ni ah, man am naa ay mbokk de Pikine yëpp taxawu ma diaspora yëpp taxawu ma loolu yàqu suñu làmb billahi wallahi wa talaay wuy ma dawal ndànk bàyyi li yàqu suñu lamb baabooy na jaaraat beneen yoon yoon bi ñu jaar pour piéger Boy loolu daanuñu tey su nekkoon bu njëkk la ko def mais daa bàyyi ba digg combat indi ma si yoon dëkk bi daa am yoon yàlla def képp kuy famille la baat faal jóg nga maa ngi nuyu sama xarit yëpp diaspora bi di dellu nuyoo ba Birane Ndour doomu Youssou Ndour muy suma lépp suma xarit jàppale ma bay du ma nitu mbalit dam koy wax bépp am na mbër yu bëri xëy na baabooy rek moo feeñ am na mbër yu bëri yoo xamante ne tey sama daraanga lañ yor man sonn ci ñoom léegi ma sax nuyu dama ne Sénégal laay wax ak Pikine Eumeu Sène la yàlla jox kaala bi Tyson la ko joxoon yàlla teg na ko jox ko Eumeu Sène ku neex moo ko yor ku mu moo ko yor xale yi nañ ñëw ñu bokk ndaw ak baay ñu représenté Pikine Guédiawaay yéen seen Guédiawaay parcelle yéen seen géej parcelle ñu nekk ci benn bu kenn xeeb li Pape Sarr defee suba man nag arrangé wu ma suñ la collé motif journaliste bi man man waxuma sama côté de mais man sama côté xam naa baabooy mënu ma def dara mais journaliste bi laay défendre Lamine Samba numéro 2 kooku ma dégg nga kooku laay défendre man xam naa ni. xam naa li nekk sama ginnaaw waratuma def erreur parce que Pikine yëpp jóg nañu may jaamu journaliste yi bu ko dem écraser gàllam du ko tooñ waxul dara rumeur mooy dama dégg ci mbedd mi Lamine Samba loolu rek la wax man waxatuma Pape Sarr mais ma su ko mu liggéey bu rek jeex na waaye ñu ngay xeex koy solal ñëpp ñu ngi sant yàlla bi sant suñu yeen maa ngi nuyu yéen journaliste yi deen masawu coono parce que liggéey bi yombul Papa Diop waaw ñii nekkul sama bis dañoo ñëw rek parce que ay piginité la ñii ñoo ma cuub ñii ñoo ma génne ñii ñooy samay papa maa leen nuyu di nuyu papa papa dimbali di nuyu ñëpp ñi ñëw ak ñi ñëwul papa na nañu ñëpp kontaan nañu bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee yàgg nañu am ay bis waa bis da ci raw bis yi bis am solo na ci ñun te am solo nag du wax jour ba bu ñu ñëwee dinañ jëf def fula ak fayda ak jom ci barke Cheikh na Cheikh Sarr bi ñu ngi defal ñu ndam incha allah rabbi. booy ñaaw bés bi dafa tey lamb. waaw combat moog coow ñoo ànd waxuma la combat sax mais lamb rek moog coow ñoo ànd ñun ci loolu lañ juddu comme ni ñu waxee ñun dañoo juddu fekk ngemb di ci kër gi kon coow du ñu jaaxal xam nga ñu ngi nuyu ñëpp nag waa comme ni ñu ko waxee duñu dugg ci ay détails parce que ay mbër lañu ay mbër yu ndaw lañu ay xale lañu duñu dugg ci ay détails mais ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi sonn suñuy combat di leen nuyu bu baax a baax ne gis nañ taxawaay bi waa Pikine lu ñu mën mooy supporter xam nga def mobilisation bu dëgër boo ñaan nag moo ñëw def fula ak fayda ak jom libéré gaa bi ñu ñibbi incha allahu rabi. waaw boo ñaan tool yi bari tool bari na boo ñaan tool yi bari na ndax sa adversaire da nga am adversaire boo xamante ni moom tamit champion la ci wàllu lamb di sa nga nekk ci yoon war a dem ñu ne ñu ne li tool yi bari bari bari la dajee benn mbir rek nga bëgg sa daan ñu ñibbi seen sama. booy ñaar dina avant tout damay nuyu Eumeu Sène mag parce que dafa nekk ci combat combat bi li ci des matu sax un mois mu bàyyi lépp ñëw sama mag Eumeu Sène maa ngi koy nuyu di ko sant le roi des arènes di ko ñaanal suñu moom dafal ko ndam di nuyu soq di nuyu mbëri ñëw yëpp ñu ñëw tamit seen xel a fi ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp comme ni ñu ko waxee la déggee lu mu def ci làmb loolu yëpp yëfu boppam la ñun suñu yëfu bopp moo ñu entraîné déglu suñu ay papa teg mbiri ci yoon te xam nga ni boo ñaa fu ko pikin ëmbee ay papa ëmb ko mu ñëw ci géew ba xam nga ni li muy bëri da koy teg ci yoon bu soobee yàlla. boo ñaa sa adversaire ne wax jooju li muy tekk boo ñëw. waaw mooy ni ko waxee rek dafa wax delloo ma ma wax delloo ko xam nga wax moom tontu moo koy fay. lu muy tekk waaw dafa wax ma ne ko man dama sama cin fonde bu tàng jër. waaw te ku nekk incha allah bëgg naa la jox sa kaas. waaw ma ne waaw bu kenn yàqamti di jaar ci kaas bu kenn di wax. na xaar sa kaas rek incha allah rabi loolu laa wax waaw. ginnaaw bi nga nuyu wax jooju ngay wax suñ ko déggee kaasu fonde mhm. na ku ne xaar sa kaas te à chaque instant gis nañu ko ñëwee sa biir carrière ndam yi ci gën a bëri géejawaay nga ko amee mhm. tey ngay ñaari tanoor a des géejawaay ci li nit ñi wax mhm. la dageen yéen a ngi bëri est ce que kon li nit ñi wax ci mbedd mi est ce que du mooy dëgg ci kaasu fonde boobu maanaam Balla Gaye numéro 2 boo paree ci a sédd communication de te ma nit boo xam ne tey damay wax lii suba wax lële dama wax ni waa Géejawaay làmb moo ma boole ak ñoom dañoo war a bëre def fulaak fayda jom ay xale la ñu ñoo bokk mbir mi mais comme ni ma koy waxee rek bu jeexee jeex na li mu moom kenn nag xale maa ngi sama yoon defaguma dara ci làmb xam nga maa ngi naag sama combat la dëggeel moo taxaw ñu ngi koy waaj ak suñu ay mbokk ak suñu ay dëkkandoo ak waa Pikine bi yëpp li ci des moom ay détail la léegi su ñëwee su ñëwee ci combat na ñoo xam ne dañ ne combat boo ma na cee yaay xale bi yaa war a def dégante situation est-ce que combat bi da nga koy baat rek gaawal bëri bi wala sa adversaire lu mu lu mu teg maanaam da nga koy fekk si kilo waaw non lu may indi nag loolu samay affaire bopp la lu may indi lu may bëree loolu samay affaire bopp la man ak ñi ma àndal waaw adversaire bi moom ay affaire boppam moom moo ko xam mais jour bi daal incha allah lu ma mën a wax amateur yi mooy dinañ am combat bu neex li ngeen foog ci combat bi mën na am mun ngeen jàpp ne combat bi dafay gaaw mu ñëw yéex mu ngeen combat ni combat bi dafay yéex mu ñëw gaaw mais lu ci am solo mooy amateur bu dagg sa billet ñun ñu xeex bu baax bëree nga kontaan incha allah ñu ngi naan nag suñu boom defal ñu ndam incha allah. combat bi la dëggee ak Boy Niang combat bi ñëpp di du ci taxaw. loolu du ñàkk loolu du ñàkk lamb bu amee rek xam nga foo am lool du ñàkk mais dégg na ko li ma la wax dama ne loolu suñuy affaire bopp la waaw loolu suñuy affaire bopp la suñuy bagage bopp la. mu ne sa adversaire ñëpp lay def ci yow. waaw dama lay wax rek ne bu jëf ñëwee wax dem daal di toog xaar fi mu toll ni combat bi li des bëreetul yaa ngi dégg préparation bi six moom wax na man wax naa fi mu toll nii moom dafa am sama ginnaaw. waa Pikine su ma ay mag su ma ay papa su ma ay xarit su ma ay doomu ndey fi ma dëkk waa Cité Popinière fi ma dëkkoon waa Cité 2 fii ñu defee open press bi Pikine tali bees tali mag riiriis i ko taaf Cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuma kenn ginnaaw raay gétoo mafia bi yëpp bàyyiwuma kenn di wax ñu ñëpp ñu ngi waaj nekk sama ginnaaw kon lu ma war mooy def flag fayda rek incha allah lu ma may loolu mooy ni boo nekkee xale da jox cër say papa ñii mënu maa def ci làmb lu ñu deful ñii bëri nañ fu nekk ànd ak sama papa dégool maa ngi koy nuyu toog ànd ak sama nijaay booy ñaa def moom lu ne ñii mënu maa def ci làmb lu ñu deful lu may def nag mooy delloo leen cër bi ñu ñëw gunge ma samay papa lañ mënu ma leen jox tamit lu ñu amul dama leen jox cër rek jox leen yar ak teggin ñu topp sama ginnaaw di ma ñaanal ndam ni ko ñëpp di defee am na mbari Pikine yoo xam ne ñëwuñu mais ñu ngi ci biir ñu ngi jàpp ñu ngi wootee ñu ñëpp benn la ñoo bokk ndey bokk baay gaa yëpp ñu ngi jàpp ku ñëw ak ku ñëwul lépp mi ngi ci biir incha allah. non bu baax a baax Ama jàpp na bu baax sunu frère la ñu ngi koy ñaanal jàmm waaw xam naa yitte yi la ak bagage yi mais mi ngi def est-ce que demul Fuuta sax dem gën a gis salax yeeg mi ngi ci affaire yi ci bagage ñu ñëpp ñoo far buur buur ñu ñëpp ñoo far ay frère la ñu ñoo bokk ndey bokk baay man sama wërsëg kenn mënu ci dara Eumeu Sène wërsëgam kenn mënu ci dara Ama Baldé wërsëgam kenn mënu ci dara suñu borom mooy maye bu leen kii dafa ne rek mun naa ñu ñëpp ñoo bokk ndey Ama mi ngi ci biir mi ngi jàpp mi ngi ci contact yi mi ngi ci xeex bi dem na mi ñaan mi def lépp ñu ngi sant yàlla a xam na ne su ma la naxul aw ma dara lu may motu ci la dëgër de lamb ju mag mi ngi fa dooraal lan ngay yi li leen dégg xam nañ ko moo ñu ñëw yar ak teggin maa ngi nuyu waa team Boy Niang mafia bi waa team Boy 100 pour 100 Boy Niang maa bu baax di yónni gis naa taxawaay ak sama fans club bi sama fans club yi nekk Gambie mafia bi yëpp gars yi bu baax a baax a baax li ma ci wax mooy combat xam nga waa Pàcc a baax a baax di nuyu waa Seras waa maa ngi nuyu waa Tëngéej bu baa kontaan naa bu baax a baax a baax maa ngi nuyu ñëpp soo doon lim damay kaay di nuyu waa di nuyu waa Bidéo waa Ndayane waa Ndol Ndof ma fi am waa Ndol Ndof dellu ma ñëw dellu ma ñëw dellu ma ñëw man du ma dugg ci sama papa la Pape Sarr sama papa sama mag la waaw du ma dugg ci détail yi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm rek yaa ngi dégg lu ma mooy maa ngi woo waa kër Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fadal di nuyu waa kër sëñ Abdou Karim di nuyu waa kër sëñ Afia Mbacke moom sëñ Fall di nuyu waa Tivaouane bu baax sama dëkk maa leen nuyu baax waa Tivaouane waa Daaru Rahman Touba Baye fàttewuma leen maa ngi nuyu ñëpp daal combat bi ñëpp ñu ngi ci nekk waa AS Pikine duñu leen fàggee suñu équipe bi yox la jëri ko comme ni ñu koy waxee combat bi nag li yëpp baax na ngay ñëw fii ñu def ambiance ñu fecc ñu defal mu neex lépp baax na mais lu am solo mooy loolu jëm ci combat bu am solo ñu ñëw ci géew bi def fula daf fayda daf jom xeex bëre maa ngi nuyu Isaaka Diop monsieur le maire ñëw na yeneen monsieur le maire suñu papa suñu lépp Thierno Ndom Ba ñëw na ñu ciy jàpp Siré Dia suñu papa Cheikh Ilim Ndouma suñu suñu mag suñu lépp Abdoulaye Timbo sama papa maa ngi nuyu ñëpp am na ñoo xam ne samay xarit lañu maa ngi koy nuyu ba Thiam bilaay ñoom ñëw nañu xam nga man Ili bépp maa ngi nuyu ñëpp daal sama papa sama famille papa Mansour Mbaye sama famille papa Mansour Mbaye ñoom ñëpp ñëw nañu maa leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax dama am sama benn xarit boo xam ne fii la dëkkoon man bu ma dëkkee fii moom moo doon jaay café ñu koy wax idi di booy ñaa xam nga bëgg booy ñaa man bu baax idi idi café maa ngi koy ñaanal suñu borom xale ko àjjana bu baax a baax a baax ñu ngi koy masawu di nuyu Ousseynou Ndom mi nga xamante ni mooy waaw Ousseynou Ndom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama papa Fall numéro wax bi mënu tëj essentiel journaliste bu fi ñëw booy ñaa masawu na loolu bu baax Pape Diop Basson sama papa Fall papa Fall sama papa Ida Fass sama papa. waa Darou Salaam ñun ñëpp waa Darou bu jeexee jeex na. kii mooy Pape Diop Boston kii mooy Pape Fall Pape ay Kolifay numéro 2 moo nekk nii Pape Fall Timila Baye ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax. ñu gis sa doom jëm ci bés wax na ba dem lu ngeen koy dolli. li koy dolli mooy mu am yor am teggin rek. kon na ci li mu nekkoon comme bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na. am ngeen lu daan la dëgër samedi. am na am na am na lu ko daan ñaari yoon. waaw ñaari yoon. wallaay wallaay. te bu bu bu samlee nga nga kontaan. waaw. parce que kon ay sa supporter booy ñaar samedi nañ kontaan. bu bu wér bu wér ñëppay kontaan ñëppay kontaan ñëppay bég bu soobee yàlla. Pape Diop Boston ban déclaration ngay mujj a def. parce que open press bi jeex na. kii mooy Pape Diop Boston léegi ban déclaration ngay mujj a def avant samedi parce que fi mu nekk nii bëri ji rek moo des. waaw déclaration bi may def rek mooy ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sunu Serigne Serigne Serigne Babacar si dernier wax bi may wax rek euh, ñu di ko baamtuwaat mooy nañu ànd ak yar ak teggin ànd ak discipline pas de violence. ñun ñëpp ñu yàlla may dimbali ñu ñu fekk ak jàmm bés ba ba ñu taxaw ci eh, bi waaye daal lépp nañ ko teg ci yar ak i teggin am ba violence ñu wone li nga xam ne moom la ñu wane ci géew bi bu soobee yàlla ba samedi incha allah. ñu ngi woon fii tey ci Pikine ah fii nag booy Niang moo ñu fi woon open press kon dama ne gars yi samedi waaj leen ñu dem fa nga xam ne mooy arène nationale suba Lac de Guiers moo ay open press parce que olof a ko waxtaala boo fóotal tey mbët. da ngay roccil bar waaye waa Mauritanie maa ngi leen di nuyu fédération mauritanienne de football ñoo ma jox tey mayo Mauritanie yi Ndeye Coumba Fall nuyu naa la Asi Diagne bu xarañ loo nuyu naa la képp ku dëkk Mauritanie rek tey naar nuyu naa la Youssou Fall mi